sëriñ daal sa lay xam naa ne yow moom borom laaj kan nga yow ma sonal si dëgg sonal ngay lay nga bi ma toogee Fès dëkk Cheikh ma toog ba yàgg ma gis si internet bi histoire bi ma xool booy bi ñu wane ko booy ba nga tëdd mu ngi gëmm ñu faatu na mu xool papam ñu ko gaañ ma woote Sénégal ñuy wax ma xew-xew bi yëpp ni ma tëddi ñu ne ay saay-saay de ñoo leen fekk seen kër doo leen nii gàlleen rey leen sama yaram ndaw sama yaram ndaw lool ci benn côté benn côté sama xol sedd ci benn côté bi serem daw lu ko tax a daw mooy ab jaamam yàlla juddoo Amérique ca dëkk bakkan yi buy xalal demal Amérique la ñuy dem ñuy dem Amérique yëpp la fi uti mooy alal moom nag mu juddu ca lam juddu woon ci fitra boo xam ne mooy islam waaye mu ñëw weddiku fitratu islam la ñëpp judd sa màgg yi sam paay ñoo lay ñoo lay orienté di la def yuhud ma nasara ma majus bi ko defee li ko def imam Sisi imam Assane Sisi borom xam-xam bu réy ba borom taar bu rafet ba ku sell la xam-xam ku baax ku bëri yërmande jël avion naaw di wër àddina bi yëpp comme ni ko maam daan defee di tuubal ay nit di tuubal ay nit yu bare bare bare ba dugal ci islam ci tariqa Tijaan ci fëri Cheikh Ibrahim dem ba Amérique kooku daf bàyyi da koo préparé woon parce que bay xam ne kii dafa war a wax américain ba ba ko américain bala muy bala muy dem ci américain bu dégg americain lool dem waxtaan ak américain yi jàpp leen ñëpp tuub ci kanamam ay américain yu bari bi ñu tuubee ci kanam xale bi bi muy tuug ñu ko tuddee Mohammed Bilal Sisi boobu mu ngi am deux mu gàddaayee Séné mu gàddaayee Amérique gu neex ga fa gars yi dem pour uti xaalis moom mu ñëw moom maa ngi dem Sénégal uti yàlla ñëpp gàddaay dem uti xaalis moom mu gàddaay moom uti si yàlla nekk muhaajir ñëw fi mu yaakaar yàlla kër Cheikh Ibrahim ci doon képpaaru Cheikh Ibrahim mu yaru foofu ak bàyyam yëpp ak famille muy jàngaar Quran man ko jàng xam-xam xam ci lu bari tabarakallah xale la fonk jàkk ja lool di wasi fa di def lépp nit ñu baax ñëpp fonk ko mu ne si daara ja un bon jour ñu góorgóorlu ba tabax fa sax kër nag lu doy waar ci gannaaw bi dabàyyi tuuti rek dañ ko tabax loolu yëpp ngir bugg a bàyyi la ma toog rek ñu ne ma daal gars yi ay saay-saay ay samba booy dugg nañ këram rey nañ ko sama bët du jooy gaawul jooy sama bët waaye sama xol jooy na lool sama xol jooy na lool métti lu naa ko lool moo taxaw muñ ko muñ mënuma ko muñ maa ngi xool Cheikh Ibrahim fadd na ci bët yi waaye maanaam baa ngi des Cheikh Tidiane fadd na ci bët yi waaye baa ngi des imam kon imam Assane ma xool nag sama xarit sama soppe imaamul akbar ma xam ne am na soxla tey ndeysaan am na naqar tey ma oo ko ma jàll ko ma oo ma jàll ko pare bi ma pare ci jàll bi ba pare ma oo porte parole mi de Cheikh Ibrahim Cheikh May Aline Cissé moom jàllu ma ko waaye wóowu ko ma oo ñu bëri ci Medina Baye jàll leen ba ma pare nag léegi ma def audio naqarlu affaire bi trop ojo boo xam ne boo ko dégloo wax dëgg yàlla da nga xam ne am naa ci naqar lool parce que suñ mbir ñun ñëpp te kenn ku nekk da nga war a yëg na mbir mi sa mbir la loolu mooy dëgg ma wax président ne ko sécurité na gën am Sénégal Sénégal manque na sécurité loolu wax dëgg yàlla xam nga ne guddi nga nekk sëkkal ñu fekkal fa ray la fa te dara xewut police yi ñëwut dara ñëwut mu ne xam nga kon sëkkal na Sénégal amul sécurité am na réew yoo ko doon defee boo def toog benn yoon rek gaa yi egsi maa président sama xarit nga waaye yokkal sécurité bi rawatina ci mbir na Chabrahim góorgóorlu baax ci loolu maa ngi lay encourage baax ci loolu ñu yokkal si policiers ñu nekk ci mbedd yi histoire yi bëri nañ rey reykat ñu ngi rey nit ñi rek te fu ne la ñuy reyee doomu aadama te rey doomu na lool. yun euh, arxaan neen la képp ku nit kenn nit dafa ma rey nga fakkaan ma ahya naas fakkaan na ma man ahya a fanam kan ahya naas jamian ku rey nit dafa ma rey nga ni ñëpp ku dekkal min dafa ma dekkal nga ni ñëpp man xatla moominan mutahamidan fajasu jaanam ku gëm yàlla te yaa ko tey sakar mooy safara ma xam ne naqar boobu laa ci amoon ma jaale waa Sénégal jaale waa Afrique jaale àddina bi yëpp di ko ndokkeel moom mi nga xam ne moo jóge Amérique ñëw fii di sakku ci son kafaru Cheikh Ibrahim dee ci ron kafaru Cheikh Ibrahim ñu suul ko ci ron kafaru Cheikh Ibrahim te xëy ñeel ko te Yunus sam ne xale bu ndaw bu dee ci wàllu ndawam dafay dugg a ndaw rawatina ndaw la mel ni moom. kon ñu ngi sant baax ci moom kontaan naa ci moom baax maa ngi ko ñaan yàlla ba léegi nag te incha allah rabbi su ma tout temps daal di mën a bàyyi jaari jaar encore.